asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aljaaliya almuridiya fi ljumhuriya alislaamiya almuritaniya fa kalimati laa tatajaawazu daqiqa waaxida innama hiya kalimatu tarxibin faqat lissaada alulama wa saada alrasmiyin wa adaa silki diplomaasiyin walxuduur alkarim fa bismi allajna haadihi المنظمة لهذه التظاهرة العلمية والتي نحن في أمس الحاجة إلى موضوعها هذه الندوة المباركة الذي ستقام بإذن الله تعالى حاليا سينطلق أعمالها الآن بمباركة من الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ويمثله صنوه وعضده الشيخ محمد البشير ابن الشيخ عبد القادر الناطق الرسمي باسم الخلافة العامة والوفد المرافق له هذه الندوة تحت عنوان دور الطرق الصوفية في تعزيز السلم الاجتماعي وتقوية العلاقات الروحية شيخنا الشيخ أحمد بامبا عبد الله وقديم رسوله نموذجا laa utilu lkalima kuntu faqat uraxib lisaada duyufana al aizza wa naqulu lahum marxaban wa ahlan wa sahlan aqul fa marxaban qawluha fi llafdi muttaxidun lakinahu bi ixtilaafi nnaasi taxtalifu qaalu yazuuruka axmadun wa tazuuruhu qultu lfadaa'ilu laa tufaariqu manzila in zaarani fa aw fadlihi aw zurtuhu fa li fa bi fadlihi fal fadlu fi lxaalayni la fal fadlu fi lxaalayni lakum antum saada shanaqita wasmaxu li ulaxisa kalimati fi daqiqa waaxida li ixwaanina sénégaliyin mbokk yi ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñépp di fas yéene ubbi ndaje mu am solo mii nga xam ne ñi ngi koy defe fii tey ci Nouakchott capitalu république islamique bu Mauritanie te di ko defee ci ndigalul cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne tey moo jiite yoonu murit di xalifa général de murit ñoo ngi koy ñaanal bu baax yàlla yàggal ko fi ca ndawam lii teewal ko fi di cheikh Mouhamadul Bachir moom sëñ Abdul Xaadir yore kàddoom di ndawam ànd ak kilifa yu tedd yi mu àndal ñi nga xamante ni ñoom la sëñ bi joxoon ndigal ngir ñu taxawal ndaje mi ca ñu doon ñu bari ñi ci jiitu di communauté mouride bi nga xam ne ñoo nekk fii muy daayira yi fi nekk ak suñu mbokki mauritanien yi ñu fi nekkal di suñu mbokki taalibe ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi doon jàppal ñi ngi dalal jàmm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo fi teew cay sant bu baax a baax képp koo xamante ni jàpp nga ci lii ba mu agsi fii ca ki nga xam ne moo ci jiitu ki nga xam ne moo ñu dalal yaatal ñu ci réew mi bañ man fee yaatu lool kooku mooy président bi nga xam ne moo jiite réew mi di as sayid Mouhamed Ould Abdoul président bu république islamique bu Mauritanie ak suñu président bopp Sénégal bee ñu fa bàyyi muy président Macky Sall di ko teg ci loxol ñi ko fi teewal ministère bi yor wàllu lislaam ji ca nekk nii suñu wet Seyd Ahmad Ould Daoud di ko teg ci loxol maire dëkk bi nga xam ne mu ngi suñu wet ak kii nga xam ne moo jiite imaam yi fi nekk ak ki jiite boroom xam-xam yi ak sunu mbokk mii di président conseil régional bu Rosso sunu sëriñ bu tedd bi alwali wul mahmudan ca ku ne xam digganteem ak sëriñ Touba sunu gan ñu tedd ñi nga xam ne ñoo fi teewal seeni réew di corps diplomatique bi ambassadeur bu Arabie Saoudite ambassadeur bu Soudan ambassadeur bu royaume Maroc ambassadeur bu gambi ak ki nga xam ne moo fi teewal réewum Palestine ki fi teewal réewum Égypte ak ki nga xamante ni moo fi teewal réewum Algérie ñoo ngi sant ñëpp. ca yéen di dalal jàmm te di leen wax ne sëriñ bi xolom sedd na lool mboolem lim séentu woon ci ndaje mi gis na ko mu gën a kawe ni ko yaakaare woon kon dalal leen ak jàmm marhaban wa ahlan wa sahlan yaa dayfana law zurtana la wajadtana nahnu duyuuf wa anta rabbul manzili fa marhaban bikum wa sahlan sayidi abdul ahad mbakke sawfa yuraxibu bikum marra uxra insha allah bi lugatina arrasmiya alluga alfaransiya insha allahu taala shukran